fii ci wakaam ci wetu moske de la divinité am na ab barab boo xam ne dafa jàkkaarloo géej gi mu nekk barab bu taaru boo xam ne mën nañ faa taxaw ngir xool li nga xam ne mooy sowu jant gi waaye nag looy gën a jege barab bi di niroo ab camp boo xam ne ay daw làqu ñoo fi newoon ba dem ay yëre jigéen ak yu xale waaye tamit ay couche yoo xam ne utiliser nañ ko ba noppi ay pot ay ndab rek euh, joxe na idée ni fii ñi nga xam ne ñoo fi nekk ab njaboot la waaye tamit yi nga xam ne fekk nañ ko fa mu ngi wone yi tamit nit ñii fi ne sûrement ay yalwaankat lañu ndax ci suuf ñi ngi fay gis ay sondeel ay suukar ak ay tàndarmaak yu ni mel waaye nag am na ay màndarga safara bu fay mu mel ni ñi fi nekk dañ fi daan togg waaye tamit dañ fiy jaaroo ndax ñëpp xam nañ ne jamono jii ndakaaru day sedd guddi gi surtout nag boo jegee géej ci ay information yu ñu jot ñu ngi ñuy wax ni fii ay doxandeem ñoo fi nekk ay doxandéem yoo xam ne ci dëkk yi wër Sénégal lañu nekk waaye nag bëgguñu wax tur wi waaye tamit mën nañu gis mu nekk askan yoo xam ne dañ leen di gis ci suñu mbedd yi ñuy yalwaan ci barab bi liñ fi nemmeeku itamit mooy ni problème yu kaaraange waaye tamit bu wérgu yaram am na fi ndaxte amul làmp waaye tamit amul wanag ñuy woo rekk kilifa yi nga xam ne ñoo gàlloo lu demee nii ñu jëg ci ca ba muy teel